Birara xam nga ñaata école lañ lakk Ziguinchor 26. école yi moom mooy suñu tey dinañ ci ñëwaat mais discours d'avant bi laay wax quoi. mais école yi moom. xam nga Sénégal fii xamuñu ku dóor ku fay lañ xam. cest à dem di jàppaate wala ñoom dóoraate defuñu ko nit ñi jóg def loolu euh, ñun jàmm rek lañ bëgg mais garsa garsa def ñoo ko wax. waxuñu ko ku dee sa yaay juraat waxuñu ko résistance ñun waxuñu ko discours va-t-en guerre yi ngay dégg yëpp est-ce que c'est pas l'État mais nag état bu faible baaxul si l'État est faible nous périssons. si l'État est fort il nous écrase. non parce que on parle d'État ak dafa am État am euh, régime. am un régime en place mais am un net non l'État toujours la éternellement la s'il est fort. nous périssons si les faibles euh, si les faibles nous périssons. si les forts ils nous écrasent. xam nga ñun ñun demuñu di xeex demuñu di dóore dafa am ñoo xam ni dañoo yor la force euh, la violence légitime ñu ngi leen di fay pour loolu. c'est l'état kooku c'est l'état mais je parle de l'état je ne parle même pas du régime je ne parle parce que ñun on s'efface parce que tamit li nga xamante ne bii tabax nañ ko comme état ak comme nation képp koo xamante ni ak foo mën a juge nan nga yàq loolu dañoo war dal sa kaw ci biir réew mi comme ci bitim réew kenn bëggul ay kenn bëggul histoire vraiment kenn bëggul surtout ñun ñi nga xamante ne bii wax na ko sànq tous ces investissements là ay ay bor la yow boo ko yàqee boo ñëwee yaay fay da ngay foog fay fay ay bor pendant deux trois ans doo ko liggéey donc alal jooju yëpp ak Sénégal si mu toll ci ci émergence pétrole gaz saway yow nga dem di attaquer ay BRT ay TER dem fekk ay jàmbur yoo xam ne liggéey nañ 30 ans 40 ans pour am bijouterie pour am ay ay ay ay ay ay magasin nga ñëw loolu lépp nga nga faagagal kar nit ñi nangu seen moto lakk seen oto xam nga loolu aussi bu ñu toogee fii di ko bay bayal nit ñu ko séqal nga xamante ne bi am na ay étranger nga xamante ne bi am na ay salafiste nga xamante ne am na ay rebelle. déedwaay non c'est ça la vérité bu buñ fi nekkee di bay di ko bay bayal nii c'est-à-dire on disparaît. d'accord loolu moo tax may wax mais kenn bëggul histoire surtout man <coughs> histoire parce que man man histoire laay laay jàngale donc xam naa li nga xamante ne bii man dem naa Rwanda xam naa li nga xamante ne bii. loolu lay bàyyi stigmate yi. donc mais fi mu nekk nii. waxu état la ñu wax waxuñu wax Macky Sall waxuñu waxu. opposition waxu état la ñuy wax cest dire état bi ak nation bi dafa am doo xam dañu koo tabax dénkuñu ko ñun aussi ngallaawaay bala ñoo bala ñu fay jógee ñi nga xamante ne bii suñu prochaine génération danañ ko jox intact. loolu mooy li nga xamante ne mooy garantir euh, donc notre notre notre nation. waaw te nation sax moo gën a fort dañ boo léegi nit ñi sax léegi dañuy dem ba dugg ci affaire xeet dugg ci affaire euh, comment dirais xam nga ay waaso ay kii fii la bokk kee fee la bokk danañ dugg dugal ko ci politique bi te loolu moo tas Côte d'Ivoire moo tas Rwanda ñëpp xam nañ ko. Mhm. politique dafa am ay limites. politique dafa am ak dafa ànd ak élégance. Mhm. politique dafa ànd ak dialogue. am na foo xamante ne bu ñu fa yeggee rek ñu taxaw lan mooy intérêt réew ñun ñëpp ñu converger vers foofu. moo man j'aime bien le de la République des valeurs c'est parce que loolu mooy opposition responsable nga nangu li nga war a nangu. bañ li nga war a bañ li nga war a bañ. loolu mooy opposition voilà.